di leen ndokkeel di leen balaax bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di alquranul karim diknu wa shifa tey ñu ñëw ci fii leen seen ay gént comme ni ñu ko baaxoo ñu ñëwati tey ci bon bunt yi nga xam ne dafa bokk ci gént yi gën a am solo ci doomu aadama muy gént yi dellu ci oto oto ak dàll waxoon nañ ko ñaari gént yi lu ama ama am solo ci doomu aadama la bokk ndax toujours sa avenir sa ëllëg la lay jàngal muy oto dal moom toujours ci nit ki si jëmbam kii gént avenir am ëllëgam rekk la ciy faral di gis ci gént moo tax gént yu am am solo la ci koy gént léeg-léeg nag ñëw baax léeg-léeg du ñëw mu ñëw du baax ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé ku am laaj mën nga ko envoyé ci numéro whatsapp bi ñu ngi koy ñaanal ñëpp nañu def vocal rek ci numéro whatsapp bi te taaxilu te xam ne dinañ leen tontu ñu bañ a bind te bañ a woote mënuma di bindanteeg ñëpp ñi woote ñëpp ñëpp ñëpp mënumaa jël appel yëpp dafay bari lool lool lool bu dee vocal yi nag am naa ci sama temps bis bu nekk boo xam danaa toog déglu ku nekk sa vocal tontu la ci sa kii incha allah ku envoyé vocal itam taaxirlu rek bu da nga toog ay fan jotoo sa gént rek mën na am ñu tëb la wàcce waatal ma ko incha allah danañ ko gis bu soobee yàlla euh, ñu ñëw ci gént yi nga xam ne dafa dellu ci oto maanaam gént yi dellu ci oto bunt boobu la ñuy waxtaan indee na indeegum naan ñaari bunt ci oto tey bi mooy ñetteel bi yaakaar naa léegi tey ñu àgg boo xam ne lu waaye gént ci oto rek boo demee ci page bi danga ko fa gis incha allah bu njëkk bi koo xam ni danga nga gént oto da nekk ci oto di dawal wala nga bokk ci nekk ci biir oto bi daal daw la wala am na keneen kuy dawal ngeen jékki-jékki oto bi daal di paan waaye ba muy paan euh, jékki-jékkiwul rek këkk fay def na ni oto di paan di def rek balaa paan nga xam ne mu ngi waaj a paan mu paan parce que oto bi jékki-jékki paan dafa am lu muy firi danañ ci ñëw ci biir bunt bi moo tax baaxul li muy firi mooy dalilun ala suubat fi lxayaat dafay bëri ay coono ak i xat ci sa dund baaxul gént dugg ci oto oto bi accident nga mucc ci accident ba nga mucc ñi préciser bu baax accident am na waaye faatuwoo ci loolu nga gént xibaar bu yi lay firi baaxul balaa yàgg da jot xibaar boo xam ne daal neexul gént di dawal oto yaa ngi conduire oto bi waaye ngay dawal xiil boo xam ne ëpp na ni ñu xamee oto maanaam daw na dawin bu ëpp daal ba yow xam nga ne daw bi xiir na ba mu ëpp vitesse bi dugg na ba ëpp baax na lool li muy firi mooy yàlla dana la dimbala jox la kàttan ak personnalité ak da nga nekk nit koo xam nit ku nit ñi ormal lool lool lool nga gént gu baax a baax a baax yaa ngi dawal oto bi ci vitesse bi am doole paanul amul benn jafe waaye nag géntul yëguloo saxaar di génn riiru oto bi bariwul lool parce que bu dee loolu daa am beneen bunt beneen firi tamit ci ñëw ci kanam waaye daal normal na ci daw waaye daw gi ëpp na amuloo amul saxaar bruit bi bariwul waaye daw gi ëpp na baax na lool lii moo tax bii may firi bu fekkee ne dangay ngay dawal oto bi nga dégg oto bi bari coow lool bari bruit lool waaye saxaar bu bari di génn ci oto bi bokk na ci gént yi gën a bon ci gént oto moom baaxul baaxul bu la fekkee ci liggéey palaasu liggéeyukaay foog génte xamal ne balaa yàgg liggéey bi dana yàqu danga ko ñàkk wala iyaazu billaah bu dee koo xam dalaa fekkoon ci sëy sëy ba dana yàqu wal iyaazu billah ku ma fekkoon ci nga am koy bëgganteel bu di waaj sëy seen diggante nekkoon ci ngoro ngoro ga dana yàqu wal iyaazu billah bu la fekkoon ci place bu baax ci société bi nit ñi naw la loola da ko ñàkk baaxul maanaam oto bi daw bari coow coow oto bi nga di ko dégg mu bari saxaar moom baaxul saxaar danañ ci ñëw buntu la boo xam danañ ci ñëw ci kanam incha allah gént jënd oto ci célibataire danay firi sëy bu dee ko góor yàlla dana la may soxna su baax bu dee ko jigéen yàlla dana la may borom kër bu baax bu dee ci ñoo xam ne dañoo am soxna ba pare wala ñoo xam ne dañoo am borom kër pare danay firi yiwu bare bare bare bari bu dee jigéen ju ëmb gént di jënd oto bu bees di muy firi mooy yàlla dana la may doom bu góor incha allah waaye na fekk charte bi mu nekk oto bu bees bu dee yeneen oto yu màgget yi dinañ ci ñëw incha allah danga nga gént di jënd oto oto bu bees la ci célibataire sëy si ku am borom kër wala ku am soxna yiw wu bari ci aji ëmb ji doom bu góor lay firi baax na lool. di leen présenté waat sunu saafara yi waxoon nañ ko mu nekk bouteille saafara yi wane woon nañ ko ci vidéo yi passé bii butéelu saafara la boo xam ne am na solo lool am njëriñ ci nit ñi nga xam ne dañu soxla ubbeeku ci seen wàllu liggéey soxla bayre wala jigéen ji nga xam ne dañu yéex a sëy am ay jafe-jafe pour sëy wala yu mel noonu incha allah saafara bu ci am njëriñ la ku ko ci kii yitte war a mën nga jokkoo ak ñu ci numéro whatsapp bi incha allah danañ ko def di ko dimbale ak nit seet ndépp koo xam ne woyof na lool te ñëpp mën nañ cee jot incha allah mu nekk bi bii itam beneen bouteille la wane woon nañ ko bii passé pour ñi nga xam ne dañu am lu aju ci rab seytaane jinne wala yenn feebar yu nga xam ne yooyu ñoo leen ko teg euh, saafara boo xam ne bu ñu jëm bindee ci al alquran la ak ay sunu reen yi ñu boole ko ngir yàlla ak faj lépp loo xam ne dafa aju ci jege rab wala xeet boobu incha allah ku ko ci yittoo rek mën nga jokkoo ñun ci numéro bi ñu ngi leen di ñaan ngeen jokkoo ak ñun ci ku yittoo gént di dawal oto ci yoon boo xam ne dangay dawal nga gis àll bi ñax bu bari ay garab mu rafet taaru voilà comme ku dawal oto ci àll wala nga koy dawal ci tali bu tali lool nga sentir mu rafet baax na lool tax taxyir xayaatuk maanaam yàlla dina la dimbali soppi sa dund soppin boo xam ne mooy gën a baax ni nga doon dundee gént gu baax a baax foo ko géntee xamal ne balaa yàgg na nga yëg changement ak soppi ci sa dund bu gën ni nga doon dundee dawal oto ci coono yu métti maanaam yaa ngi dawal daal yëpp nga ne na lool waaw euh, oto baa ngi kërëng kërëng yi di kii daal dawal oto ci coono daal yaa ngi dawal ci fitna ak njàqare li muy firi mooy nit ku bari noon ka baaxul foo ko gisee xam ne yàlla nattoo na la ay noon yu baree baree bari yàlla nañ ci yàlla musal gént dawal oto bi jékki-jékki rek fay waaw dafa jékki-jékki rek paan yëngal na oto bi fay na. amul benn yëguloo paan gu muy tàmbali daa jékki dina këkk fay li muy firi mooy nit nga koo xam ne da am benn aajo boo xam ne da nga tënk sa mbir yépp waaw ba xalaatuloo dara te loolu baaxul maanaam am dara rek daal ci tënk sa bopp ba lépp leneen nga fàtte ko te loolu baaxul loolu lay firi moo tax sànq ma tollee fële ci oto bu paan man la woon dafa am beneen firi gént nekk ci oto waaye nga nekk ci ak yeneen i nit da nekk ci oto waaye ay nit ñoo ci nekk moo xam oto bu ndaw na ñeenti nit nekk moo xam minicar la bu yàpp ay nit yu bari moo xam moo xam li ngay jàpp bu fekkee nit ñi nga bokkal oto bi ñoo xam la baax na lool waaw gént gënu ko baax lan lay firi mooy ay xéewal ak yëkkati ko sutura ak teraanga ju la yàlla defal bu dee xamoo leen contraire li ma la wax la kooku baaxul jafe-jafe ki xat-xat la gént di jënd oto oto bi oto bu màgget la màgget na lool waxoon naa la fële boo gént di jënd oto bu bees waaye fii dangay jënd oto oto bi daa màgget wala nga jënd oto boo xam ne amoon na ba xeewi waaw lu mel ne ay r oto yu yàgg yooyu nga sentir ne moom nga jënd moom gént la goo xam ne tegtal bu leer naññ la bu dee góor moo ko gént dana toog dana am boroom dana am soxna soo xam ne dafa sëy ba borom këram génn àdduna wala mu sëy ba tas wala aksu saxeex bu dee jigéen la kazalik bu dee jigéen moo gént jënd oto boo xam ne dafa amoon ba xeew yi amatul baal ma du oto bu màgget oto bu amoon ba xeew yi la oto bu màgget dinañ ci ñëw ci jigéen foo ko géntee da nga am boroom kër boo xam ne amoon na soxna ba mu génn àdduna wala mu amoon soxna ba tas bu dee nag oto bi beesul waaye màgget na xeewul bokk laa bëgg a waaye beesul waaye oto bi dafa màgget baaxul da am boroom kër boo xam ne dafay néew takk kàttan ci wàllu poos maanaam dooleem daal du bari ci wàllu o oh, maanaam dafay nekk miskin comme man gént di jënd oto bu bees taq waaw oto bu bees taq waxoon nañ ne baax na lool waaye su fekkee dafa nekk oto bu bees oto bu bees taq bu weex boog laa bëgg a wax bu weex walla mu nekk oto bu xonq danay firi relation mbëggeel bu bees balaa yàgg bu dee góor yàlla dana la xamale ak jigéen bu bees koo xamanteel ku baax bu dee jigéen kazalika oto bu bees la waaye couleur bi dafa xonq wala mu weex bu njëkk ba damaa waxoon bu bees rek seddoo couleur bi wala mu am yeneen couleur ok gént di dawal oto ci kaw ay montagne wala nga koy sentir ne yaa ngi daw fu kawe lool di yéeg mu bari coono lool baaxul sa dund dana bari xat-xat ak gént di dawal oto di ree yaa ngi dawal waaye sentir nga ne yaa ngi ree baaxul li muy firi xat-xat ak i jafe-jafe da nga ci tàbbi wala su saxiix bu dee da ngaa sant dawal oto di jooy xéewal ak sutura ak yëkkatiku yu baax a baax a baax lay firi kon bu dee da ngay ree baaxul bu dee da ngay jooy baaxul gént di ree ñaari du oto kes li ci ëpp baaxul gént di jooy li ci ëpp baax na ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partager lii moo delloon ci gént oto xam naa benn bunt moo ñu dese ci oto suñ ko indee nag mooy berle yu mag yeeg yooyu suñ ko indee xëy na li ci ëpp ci lu waaye soxlaat ci oto mun nga dellu ci youtube bi mën nga ko gis incha allah ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.